mauritaniens yi nekk ci Sénégal euh, monsieur Cissokho ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi. ah maa ngi dellu encore di la sant di sant presse bi yëpp parce que dëgg dëgg boo gisee ñuy dund parce que pour ñun dañu def dañu dee ba pare boo gisee ñu boo gisee ñuy dund ñu defee dañuy dund mooy presse bi moo ñu dimbali donc vraiment man maa ngi leen di féliciter di leen encourager. jërëjëf euh, Cissokho euh, kon ni ma ko junjee léegi li ñuy waxtaanee tey mooy li fi xewoon euh, avril 89 jàpp 91 ñuy kay wax souvent événement naar yi wala événement Mauritanie muy jafe-jafe bu amoon diggante ñaari réew yi jeexital yi dal ci kaw ñu mel ni yéen ngeen ay réfugiés mauritaniens comme des deux côtés tamit amoon na ay victimes waaye yéen yéen a ci gën a fës kon ñu bëgg d'abord nga ñëwaatal ñu ci lan moo xewoon ak fan la jóge waaw nga xam ni taarix baax na trop parce que taarix buñ ko suulee rek rey nañu dëkk bi ah, li xewoon ah, musiba bu mag la ah, diggante Sénégal ak Mauritanie moom comme yeneen dëkk yi rek la lu baax rek lañ ci xalaat mais bu seytaanee ñëwee hmm, nit ñi aussi def ci seen wàll day metti diggante sàmmkat ak béykat la Euh, sàmmkat yi ay mauritanien la ñu béykat bi ay sénégalais la ñu si zone Bakel foofu la ñu amee xuloo te loolu day xew bés bu nekk dafa mel ni comme la miñ ak bëñ rek si biir euh, yaram mais du tax du ñu tàggoo alors euh, bi affaire bi xewee malheureusement dafa fekkoon nag Sénégal si boppam dafa mën ay situation sociale demande sociale bu métti bu fi nekkoon en même temps mu nekkoon Mauritanie yokk si nag ak problème ethnicité si biir mooy affaire xeet moo bi affaire bi xewee daal ku si nekk daal jéemoo génne problème dëkkam def ko ci beneen teg ko ci faar ko jël ko teg ko mu nekk lumière ci problème bi xew. xeex yu metti am si ba ay dee yu bari sax am. xeex bi lu ko indi ay mala ñoo. soo waaw c'est-à-dire que léegi ñoom euh, suñu mbokk mauritanien bi ñuy ñëw di jël seen euh, mala yi nekkoon ci biir toolu Sénégal yi. Mm. foofu la xeex am ba ah, ñoom. mala yi ñoo dugg ci tool yi ci tool yi. waaw foofu la xeex amee ba ba ma may nit yu dee après ñu leen di ñu leen di. diri ah, dañ leen a yàqal tool yi. tool dañ ko yàq dañ ko yàq dañ ko yàq après bi ñu reyee Sénégalais yi. Hmm. ñu diri seen euh, seen néew. Hmm. mu nekk ay image yu xaw a metti hmm. xam nga wax nag bu xas commencé ba génn. Ah. mais surtout. condition sociale bi amoon si ñaari état yi surtout Mauritanie mm-hmm. moo tax affaire bi ñu profité si rek boole si leneen mm-hmm. gis nga loolu nag bi mu xewee ñi si dee bari nañ trop te defe naa du yomb ñu xam ñaata la aussi bien si côté Mauritanie mm-hmm. que si côté sénégalais gambien guinéen malien ivoirien ñu si bari seen euh, noonu lañu ñu noonu la ñu réeree bi yëpp fi demee ba dix communauté internationale bi ne il faut yi taxaw parce que lii xamuñu ko. ci région bi c'est la première fois incident bu mel nii grave bu mel nii jot. léegi nag communauté internationale ne. gan la bu nekk ci dëkk bi day dellu dëkkam lu muy tekki mooy sénégalais yi nekk Mauritanie dañ leen di delloo seen dëkk Mauritanie yi nekk Sénégal ñu dellu loon seen dëkk parce que kon dañ doon Mauritanie sénégalais yi fa nekkoon dañ leen doon toroxal tout comme Sénégal Mauritanie yi fi nekkoon. waaw même si bu nekkee du am niveau. mais métti métti rek la. mais fii tamit amoon na ay problème yi si nekkoon si communauté ne groupe euh, communauté naar yi fi nekkoon. Mauritanie yi fi nekkoon. mais côté côté Mauritanie moom dafa dafa fësoon trop. foofu foofu seen amoon na fa. alors bi dee yi bare ak coono yi bi bare communauté internationale ne ñoom ne dañuy affaire na taxaw. Mhm. léegi ni muy taxawee mooy Mauritanie yi nekk Sénégal ñu delloo leen seen dëkk Mauritanie. Mhm. sénégal yi nekk Mauritanie ñu dellu leen seen dëkk Sénégal. Mm-hmm. loolu tamit jàmm la. kan ah. moo chargé woon rapatriement bi. waaw léegi moo ko def léegi nag moo may avion bi si commencement bi avion ñu leen doon yónni. d'accord y avait Maroc. Mm-hmm. Espagne la France. Mm-hmm. ak euh, ay financement Arabie Saoudite bon nit ñi daal dimbal nañ daal pour daal affaire bi daal calmé wu. si biir loolu nag bi ñuy génnee sénégalais yi nekk Mauritanie di leen delloo seen dëkk lañ si boole nit ñi ñuul lu Mauritanie yi parce que ñun dañuy ñuul comme sénégalais. encore sant yi Ba la Sissoko la Ndiaye la Sissoko donc loolu mënuñu xam lan ñoom ñoom nag loolu la ñu profité nag bi ñuy génne sénégalais yi boole si mauritanien loolu ñu xees ñi lañ fa bàyyi. ah naar yi rek lañ fa bàyyi. naar naar yi lañ fa bàyyi. yéen ay mauritanien ngeen kon ñu jo boolewaale leen ci sénégalais yi indi leen. ñi ñu indi yëpp. Ah. seen papa. mauritanien la seen yaay mauritanien wala seen papa ak seen yaay yëpp mauritanien ah donc lu leer la lu leer la te yi ci gën a bari sax pour wan la encore loolu mm-hmm. ay militaire la ñu te def naa kenn du dugg armée national te fekk tu n'es pas un citoyen ah, national ay yi ci bari ay fonctionnaire la ñu te mun loo nekk fonctionnaire au Sénégal si tu n'es pas sénégalais ah vice versa mm. donc ñooñu lool moo lay wone que ñii moom seen këyit bi leer na mais li ci desoon rek mooy politique la woon dañu bëggoon wàññi doole nit ñi ñuul yi ci biir Mauritanie loolu moo doon fondement bi loolu nag. yaa ngi kan moo doon décider ne kii la ñuy yóbbu ak kële c'est l'état mauritanien. premier état terroriste état mauritanien léegi nag mu wàcce ko dans les sous-préfectures dans les régions. Mm. gouverneurs yi ñu aussi comme ici on a des commandants de région militaire. Mm-hmm. gis nga léegi nag décision ba wàcc dem ba si village yi. donc mairie yi ak euh, autorité locale yi ñëpp décision bi ñu gis kaw ñu koy appliquer. donc et des fois aussi day am ay ay désignants dañuy jël ay nit ñi nga xam d'une manière désordonnée mun nañ jël rakk fii bàyyi yaay fii jël nijaay fii bàyyi tante fii donc une séparation extra extraordinaire des familles pour pour wane rek pour ñoom ñu mun a wax ko gis nga nit ñëpp nit ñi ñuul yëpp demuñu ñu rek la ñu parce que ñii hmm. ay dañu tàng xool wala c'est des rebelles wala c'est des pour essayer yàq seen tur moo tax ba léegi am na ay noir. kon Mbadou dañ ci profité rek la yeneen problème bu bari. benn bi ñu jëkk le mooy wàññi population négro mauritanienne muy benn mm-hmm. deuxièmement nee naa la si bari ay fonctionnaires ay militaires lañu donc post yooyu il faut ñu jox ko ñeneen mm-hmm. te ay naar lañ fa dugal ah troisièmement nit bu ñuul par nature mm-hmm. cosaanam mooy suuf noir rek suuf loolu moom ba àdduna di jeex xaw ma nu ko nu ma ko mën a expliquer dafa am tout la vallée du sud euh, mauritanienne wala sud mauritanienne dafa fertile dafa bari dafa jege ndox mi. te noor bi fii naar yi gën a bari amul ndox. Hmm. amul euh, gan en amul plantation amul yu bari yu mel noonu. Hmm. donc ñoom seen xel a ngi si woon temps boobu si OMVS. mi ngi commencé di dem di dëgër te xam nañu fii ak 10 ans. Hmm. fii dina am benn valeur économique bu très important. muy fleuve bi muy fleuve bi ak suuf si nekk foofu. donc moo tax ñu def ñoom nag fekk ñoom programme loolu xam ne mën boo dëkkee nit. Hmm. bi nga xam ne yow xamuloo li nekk si boppam. mën nga tëdd ak moom sa fekk dafa la bëgg ren bi. waa noonu la yëf yi demee. moo tax dañ ko yaa yo moment 373 villages. Hmm. ñoom it dañ leen cent hmm. au Sénégal 363 villages 373 villages sénégalais dañ leen jàlloo. te bi ñuy jàll seen béy. seen nag comme ni nga xam ne sax mbokk pël yi. y avait des gars qui avaient trois cent quatre cent mille ba ñëpp dañ leen jàll gis ñu te li si gën a ñàkk li si gën a metti li ma fàttaliwul ci temps wu koor la ñëw. ci hmm? temps wu koor la ah, bi muy xew koor la woon. si koor la si koor la te bi mu demee ba sori mu nekk diggante tey la korité suba la korité. Hmm? am na ñi nga xam dañu togg seen togg mujj ko lekk. Hmm. bi militaire yi ñëwee noonu leen jëlee yóbbu leen. je t'assure seen togg bi ñu togg pour pour euh, le ramadan la. lekkuñu ko te ñoom ñoo ko togg. Mm. foofu la leen di te buñ lay yóbbu doo yóbbaale dara. Ah man man je donne un exemple très simple ah. même si même bu nekkee bëgguma di joxe sama cas. Mm-hmm. man maa ngi doon liggéey ministère de la pêche. Mm-hmm. Ah, administrateur maritime la. Mm-hmm. Ah, en Mauritanie. en Mauritanie. en 5 août laa jël laa jël service. avènement euh, bi xew 89 donc plus de 10 ans de d' expérience. Mm-hmm. mais te bi mu fay génn titre directeur adjoint laa fa génnee. Mm-hmm. dans une grande entreprise de pêche parce que temps boobu Mauritanie ñaari ñaari mamel rek ñoo fa nekk. Mm-hmm. mine bi suuf si ak pêche bi. te pêche bi dafa xam dafa jël jël valeur te te pêche bi sax xam nga valeur am léegi boo déggee affaire problème gendar yee. d' accord mais bi may yegg si fii pantalon jean chemise. ak carax laa duggee Sénégal. lu tax ñu indi la. da nga toog rek ñu woo la. waaw ñoom dañuy def liste. waaw liste ñaar ñetti kaa ngi si liste bi. soit yow post bi nga yore. Mhm. bëgguñu nit bu ñu nekk fa. Mm. wala yow da nga juddee Sénégal. wala yow am nga gis na daal ngay dem Sénégal lu bari. Mhm. pour ñoom daal loolu daal yow booy dem Sénégal rek Sénégal yow lan moo ci sa kaa da nga ñëw Sénégal lu bari. man li ma wóor mooy li ma gën a wóor mooy mhm. c'est Euh, post bi ma yore woon. toog naa presque huit mois avant ñu ma fay yóbbu. Hmm. parce que dañu parce que bëgguñu woon ma dem fa. Ah. ndax li ma nekk nit bu ñëw rek du parce que xaw ma ko de no dañu ne woon daal waruma fa dem parce que dañu ne woon nit ñi ñu li bari nañu ci service boobu. Hmm. au delà du fait que man juddoo naa Sénégal. ça c'est fii laa juddoo. sama papa comme ni ma wax sama papa mauritanien la sama yaay mauritanien la. Hmm. mais rue cinq bi xurunaar Thiès Ndar. président mauritanien yi fi ñëw yu fi nekkoon yëpp ñoom ñëpp fii la ñu jàngee fii la ñu ñu si bari fii la ñu juddoo. donc problème bi du loolu problème bi mooy politique la woon pour xoqatal nit ñuul yi pour wàññi doole nit ñuul yi pour wax Mauritanie dëkku arabe la. Mm. que nit bu ñuul bu fa ñëw dafa ñëw wut si liggéey te loolu fen kat bu mel noonu munul am musul am te taarix dina ko wone mm. waxtu bi dafa jotagul rek ci situation donc loolu mooy. situation générale événement bi te loolu nag euh, ñetti ñetti xalaat moom aussi ñëw bu ma xalaatee ci événement yi mm. gis nga gouvernement sénégalais bi ñu ñëwee fii këyit yi muy joxoon ay këyitu ñetti weer la bi ñu leen indee bi ñu ñëwee ba ñuy enregistré du ñu immatriculé ak yooyu parce que convention internationale dafa ne bu daw làkku ñëwee il nga xam fu ñu nekk mm. dem fekk leen compter leen. gérer leen jox leen këyit. recensement. pour problème sécurité pour ñoom ak problème sécurité pour l' état. parce que état baax na ku dugg si dëkk dëkkam mu xam. mu baax ak ku bon loolu c' est un travail régalien d' un mm. bi ñu joxee këyit yi këyit yi valable valable ñetti weer. bi ngeen ñëwee dañ leen considérer comme ay Mauritaniens yéen. wala ay Sénégalais ay réfugiés donc c' est déjà c' est que nous sommes des Mauritaniens réfugiés. parce que ay kayitu Mauritanie ngeen yor. non man man ki ma doon waxanteel bu ko neexoon mu ne du ma sa du ma Mauritanien ñaanal yorewuma kayit itaalewuma kayit. ay ah, yow xanaa sa service lañ la jëlee. bi ñu jëlee si même bu la jëlee bu la jëlee sa kër. booy génn. doo jël dara doo boo ko yoree. dañ lay fouiller ba boo eggee ci commissaire dañ lay fouiller këyit bu ñu gis ñu teg ko fee bu leen neexee ñu lakk. 99 hmm? pour cent yi ñëw fi xam nga ñoom nag la ñu xamee que ay Mauritaniens ñëw nañu am na ñenn ci seen xalaat dañu dugal seen carte seen suufu daal. Hmm. bi ñu ñëwee fii nag dañ ko génne. d'accord mais ñu génne comme ñun indaale wuñu dara bu ko neexoon ma ne ko ajjuma laa te mënu tuddloo ajjuma parce que aw ma benn këyit mu ko mais comme situation bi ils ont compris ils ont pris les faits comme ils sont ku la nee duudu nga jàpp duudu ku la nee faatu nga jàpp faatu di xool avec le temps mais mënuñu contredire kii wax. parce que aussi mënuñu ko laaj preuve. parce que wóor na leen que ñu bari. ñëw leen preuve. tu comprends donc je répète bi ñëwee fii état sénégalais këyitu ñetti weer lañu jox en tant que demandeur d'asile réfugié. Mm. donc ça veut dire que Sénégal ci boppam xalaatul woon même ñun. que lii dina def sax weer ba ñaari weer. benn question wu temps rek après ngeen delluwaat. voilà c'est-à-dire côté bi ñun ñëpp. mais nag day fekk ñoom xamuñu woon luy intention de l'autre partie. xam nga kii moom nott yott bu baax am na ko. Mm-hmm. mais nag xamul kee moom. lu voilà loolu nag moo dépassé événement ba nga xam ne ñoom ils ont été dépassés par des événements moo tax seen seen gestion bi takk suuf. xam nga booy booy def dépense une semaine. ak dépense un mois. du benn ba ñetti point yi ma jàpp mooy tiis parce que ñu bari dee nañu. Hmm. ñu bari dee nañu te dee yi nga xam ni dafa ñaaw ah, ñaaw euh, boo gisee jigéen bu biir bu ëmb ñuy xott biiram ne dañu bëgg a xool lu nekk ci biiram. Hmm? xale bu ndaw. ñu dóor ko si miir comme baltings. ñan ñoo def loolu. naari jigéen yu ñuul li lañ ko def. dégg nga li mu wax réfugié yëpp moo commencé commencé A ba ba Z. Mm-hmm. réfugié yëpp yu Mauritanie ay nit ñu ñuul lañu entre soninke wolof ak tukulóor amul réfugié naar. Mm-hmm. ma dellu si de amul réfugié naar en événement 89 léegi la commencé am yeneen yeneen xeetu réfugié mais événement 89 dem 90 ba 91 ñoom ñëpp. bu nekkul wolof nekk soninke bu nekkul soninke nekk tukulóor dégg li ma mm-hmm. jàpp nit jël woto ñaari woto takk tànk bi fii takk tànk fii kii dem gauche kii dem droite loolu gis nañ ko fa mm-hmm. cest euh, suul nit te deewul waaw siwul nit si dew mooy li ma la rek mais il faut ñu wax ko parce que loolu mooy taarix boo bu ñu demee bay wax euh, bay tax traite des mhm. bu ñu demee bay wax tirailleurs sénégalais du pour xuloog ñoom mais dañu mu ko wax li xew pour ñu xam ko pour mu bañ a amati mhm. et puis ñu xam ni que lii dafa xaraam te maa ngi siy dellu bi muy xew si weeru koor la xew ci dëkk bi ñuy wax république islamique de Mauritanie mhm. lu lu doy waar lu doy waar donc vraiment tiis ñaar en route parce que Mauritanie avant événement yi dëkku asile la woon ak économiquement dafa doxoon ni ñi jugee fépp comme ni ñu ko xamee en Afrique rek temps Gabon ñëpp dem Gabon temps wu Libye ñëpp dem Libye mm-hmm. noonu Mauritanie noonu la meloon ñu yàq ko nii complètement cohabitation bi amoon si nit ñi parce que xuloo xeex ko moom du ñàkk si biir si biir quartier si biir dëkk mais bu mu dem ba nga xam dañuy def xeet xeet xeet yi di reyante comme ni nga gisee Rwanda ak Mozambique te loolu ñetteel bi nag mooy le dernier mooy li ñuy wax génocide c'est-à-dire que lii politique la programme la exprès exclusivement ñu def ko pour toroxal nit ñi ñëw li wàññi seen doole wàññi seen euh, seen toogaay si dëkk bi mm. wàññi seen activité si dëkk bi mm. parce que fi mu nekk nii nit ñi ñuul bari ñu ngi Mauritanie mm. amuñu carte d'identité donc ça veut dire lu munte xew si foofu. te ay Mauritaniens lañ. mais bi ñuy dàq Touareg yi ak ak ak Saharaw yi ñu ngi leen jox ay këyit parce que ay naar la ñu. dañoo xees. pour wax la Touaregu malien yi. ñu bari nañ Mauritanie moo tax d'ailleurs problème mu Mali bi ñëpp di wax Mauritanie. Mm-hmm. pour ma mais du ma si dugg. pour bon mm-hmm. la rek Sahrawi ñu si bari noonu la leen joxee këyit. ñu jox leen këyitu mauritanien yow mi nekk mauritanien ñu génne la parce que nit bu ñuul nga parce que doo wax arab mm-hmm. donc euh, lu lu lu lu lu metti la mais nag comme ni ma la wax taarixu Afrique la taarixu Mauritanie taarixu région la il faut nit ñi xam ko. jàng ko te def lu tout mu bañ a amati. waruñu ko nëbb lu muy naqar yëpp te laaj nañu koy wax parce que ñu si bari xamuñu ko wala ñu si bari dégguñu ko. ñu si bari mosuñu xalaat mais am na ñenn sax ko dañu ne lu dëgg. ndax yëf yi ni mu ni mu ni mu diisee. donc loolu daal laa la munoon wax ci quelques éléments pour euh, décorer euh, kii bi waaw. léegi yéen bi ngeen ñëwee fii ba trois mois jeex lan moo xew. waaw cest à que comme ni ma la waxee bi trois mois bi ñëwee mu gën a yomb ñi ci bari. ñi ñëw si avion. ñu ngi leen wàccee fii Batrin. Hmm. Batrin bi Wakam. Wakam bii Batrin bii woto moo lay jëlee aéroport indi la fii ñi ñuy jàll si dex bi nag da ngay jàll fii rek comme tali bi. loolu côté rek foofu ngay nekk ji. Hmm. ñi si bari. ñu sàncal leen. ñu ñoom village la yi fa nekk. ñoo ñoo comme ni nga xamee humanisme africain rek. ak surtout Sénégal ñu dalal leen. en attendant autorité yi di ñëw. alors bu ñoo ñëwee léegi nag li ñuy def. jël ay matt ay ay ay bant defar ay hutte jéem a defar leen daal pour mun fa nekk parce que mun loo nekk si biti. Euh, euh, ay ay yi nga xam ne kenn xamu ko. defar ay sàncaan seen waaw ñii ñi ñëw nag fii bu ñu defee fii Batrin ba pare. Mhm. après ñu jëlee leen fii parce que dafa taw dafa la nawet dafa doon ñëw si. Mhm. te camp bi ab fii ñu leen defoon dafa mhm. dafay senn. ñu yóbbu leen Thiès. Thiès bi ñu yeggee foofu campagne agricole ñëw. te si angaar yi la ñu nekkoon. te angaar yi foofu la ñuy def produits agricole yi. alors léegi nag ñu wax nit ñi ñaar la dañ leen di yóbbu Dagana. loolu moo tax Dagana nekk le plus grand centre intellectuel de réfugiés mauritaniens mm. fonctionnaires yeeg militaires yëpp foofu la ñu leen yóbbu. léegi nag deux choses ñi bugg dem ñu yóbbu leen ñi bugg a dellu dakaar ñu bàyyi leen ñoom ñu dellu. Mm. donc ce qui veut donc dire après après Thiès daal la éclatement am. Mm. mais à l'époque da ngay ñëw fekk leen ñoom ñëpp benn dajaloo Idi Umaru à peu près ñaata ngeen woon au minimum quatre-vingt mille ah au minimum quatre-vingt mille et la population monétaire n'était pas importante surtout intellectuelle n'était pas mm. importante mais li gën a ndaw quatre-vingt mille Mauritaniens ñëw nañu fii ci événement euh, Mauritanie donc ce que l'on dit c'était un impact euh, économique extrêmement puissant sans parler nag lu côté de l'élevage côté élevage bi moom ah, suñu mbokk pël yi fi ñëw dafa bari dafa bari dafa bari te loolu yëpp seen alal si ginnaaw la donc. yëpp fa lañ ko bàyyi. mais nag yeeg tool yeeg. nee naa la même même brosse à doo ko yóbbu lu ñuy fekk si yow même chaîne. dañ koy mais non nee du dem montre du dem chaussette du dem tànku neen bu ñu ko mënoon ñu def sax taatu neen. Non, c'était vilain, c'était hideux, c'était quelque chose d'incroyable. pour woon la rek ni affaire bi ni affaire bi metti woon et loolu nag loo loolu moo lay woon que ñun presque euh, loolu day wone que ñoom dañ ko programmé parce que lii du instantané. Mhm. non non non non du instantané am na lu si bokk et d'ailleurs la preuve tu as moo continuer dem si militaire yi. Mhm. dem si waaw. donc ça veut li ñu préparé moom. parce que ku nekk militaire wala fonctionnaire moom c'est sûr que yow. ci ci dëkk bi nga bokk. da exactement exactement donc euh, loolu moo tax ñoom dañ ko programme li seulement xam nga loo programme rek mën nga ko def. mais loo lu imprévu il faut que mu am erreur. dëgg la. moo tax lii ni mu demee nii. impeccable c'est exceptionnel. c'est-à-dire am na fu ñu ko teg. waaw ñun nag ñoo ñoo ko yëgul ñoo ko yëgul d'une manière. jottu leen ko woon waaw ah, non non mais c'est que ko woon xalaat sax. mënuñu ko woon xalaat mënuñu ko woon xalaat euh, parce que. dafa ñaaw ba ngeen ñaaw bi nga xam ne mënuñu woon mun xalaat que loolu mun na xaw si. d'accord léegi éclatement bi mu amee Thiès ñii dem Dagana ñii dellu si Dakar ñii des fële euh, prise en charge bi naka la demee woon ku leen doon dundal. ku leen dëkkaloon. xam nga bu événement yu mel noonu à ñëwee am na communauté internationale. Mm. buy lancé appel. surtout maa ngi lay wax c'était la première fois muy arrivé si zone bi et puis 89 c'est pas 2019 l'économie mondiale n'était pas à ce niveau-là. Mm. les donateurs étaient encore surtout boo xoolee population Sénégal 89 ak 2019 du ko waxatuma lu Mauritanie donc communauté internationale def def demande alors avec le mandat du HCR bi nga xam ne moom moo yore mandat international pour toppatoo les réfugiés alors ñu jox leen ay ay dons yu dul jeex pour mais nag ils le font passer par l'État géré par la ASER. Mm. donc de telle fii la ñu commencé di di di servir nit ñi. ration ration comme ni ngay dégg rek comme ni ngay gis si si si si télévision. Mm. ration ñëw taxaw ki nga xam ne dafa am këram am jabar am doom di lekk di maye léegi day ñëw taxaw ak di di di jël donc moralement. Mm-hmm. daf lay wàcce benn wàcce bi nga xam ni. Ah. kenn munu ko xam donc mm-hmm. communauté internationale moo ko def pendant cinq ans ba quatre-vingt-quinze. 95 chaque mois dañ leen di jox. dañuy joxe dañuy joxe ay dons. dons ñaata ay weer ay lekk def au début au début il il tous les jours mais après ñu commencé par semaine par mois mais dans les camps moom dañ koy def par semaine. jox leen parce que foofu les gens étaient pauvres mais fii à Dakar comme on était euh, intégré dans le grand milieu dakarois mm. c'était pas possible de donc dañ koy dañ koy def pendant une période donnée. te li si gën a bari sax du fii. dans la vallée la. fii moom presque li ñu commencé woon joxe bariwul. après ñu arrêté ko ku ah, c'est comme comme pour dire ku demul si àll ba doo am. doo jot doo jot léegi ñi desoon fii nan lañ doon def pour dund. Eh, bon. puisque ñëwoo ak dara. tu n'es pas mauritanien mooy li ma la wax rek ah, mooy euh, teraanga Sénégal ak nit nit bu ñuul. Mm-hmm. bu gis mbokkam bi nga xam amul dara. Mm-hmm. ak encore la communauté mauritanienne qui était installée ici. Ah, qui aussi a fait un grand même pas la communauté mauritienne la communauté africaine. Uh-huh. que je rappelle des Guinéens des Maliens des Ivoiriens. kon am na ci ñoo xam ne dañ leen héberger woon. waaw am nañu am nañu si héberger am nañu si héberger na ñi nga xam nag euh, par exemple ku amoon jabaram sénégalais. donc facilement des comptes wala des relations vice versa. ah wala des promotionnaires am na ñi nga xam ne des promotionnaires sénégalais qui ont euh, euh, bi ñu doon jàngee mm-hmm. am na ñi nga xam ne rek mbokk mbokk rek a des gens qui ont été reçus par des personnes qui n'ont jamais connu. Mm-hmm. que daal yëf yi daal daf jëlee kaw. et aussi parce que kii day wax wolof muy wax wolof kii day wax tukulóor ñuy wax mm. donc problème mu culture culturelle dugg na donc noonu mais pour wax la daal euh, kii bi euh, dundaay bi moom metti na. métti woon na trop trop trop trop trop donc daal euh, jub wàcc daal mais d'une manière indirecte léegi nag am na ñenn ñi nga xam ni comme je te les enseignants. waxoon naa la am na ay fonctionnaires yu ñëw il y a des enseignants il a des sages-femmes il a des infirmiers ñooñu progressivement avec les cliniques privées ak yooyu. ñu commencé ñu inséré woon même même surtout même dans les hôpitaux publics. Mm. ñu yóbbu leen parce que y avait un besoin accru. surtout côté féminin sage-femme ak yooyu. ñu jël leen yóbbu ñoom te ñuy liggéey même s'ils ne sont pas officiellement reconnus. mais kii bu nekk ñu jox leen dara. Mm-hmm. ñoom te ñu téyeloon ñee ñi di jàngale. donc cest à la ñi nekk si bële Sénégal jàpp na ci bu baax. bu dee surtout population bi. gouvernement parce que mënuloo ñëw si dëkk te dëkk boobu nanguwul nga ñëw loolu moom si clair mais surtout nag population bi moom. Mm. te loolu du tey parce que la population sénégalaise a été toujours humanitaire par rapport aux exilés. Mm. on se rappelle des cas des Guinéens. qui sont là depuis 1900 ak ñeneen ak ñeneen les Maliens ak ñeneen ak ñeneen mais dara et surtout Mauritanie moom dafa gën a jege Sénégal. waaw Mauritanie ak Sénégal moom dafa seen seen kii dafa dafa fort trop. si tu rappelles que Sénégal Saint-Louis yàgg na nekk capitale Mauritanie. donc loolu yëpp day yokk relation yi mais nag en un certain point bu yeggee fi nga xam ne da nga bëgg a dimbali loo dimbali. Mhm. coono foofu la commencé. d'accord communauté internationale bi dimbale na leen ba 1995 nga wax sànq. au delà de de 95 lan moo xewoon. 95 dañuy jug benn bés rek te lu ñaaw. Hmm. arrêté. Ah sans sans avertir sans informer sans préparer la communauté. ñi nekkoon Dagana fan lañ dëkkoon ñoom. si dañu am camp. d'accord dañu nekk fenn fi nga xam ne ay réfugiés rek ñoo fa nekk. xam nga. ñu defara leen ay sancaan ak yooyu. déedéet ñoom ñoo seen bopp. waaw Mauritanie ñooy wut dem si àll bi. di avec l'assistance des des des Sénégalais de Dagara. d'accord dem wuti di mat. Euh, defar ay néegu ñax ak ñax après après wut ay briques ab bu yàggee nga wut ay boo commencé di jaay parce que y a certains aussi qui faisaient du pain. Mm. qui vendent du bref voilà donc euh, ñoom ñoo doon kiiwal seen bopp. yow la donc je te dis dañuy jóg directement rek arrêté te nee naa la arrêté bi waxuñu tinuñu. instant boobu amatu leen këyit parce que 3 mois yi jeex na. non 95 këyit c'est-à-dire chaque 3 mois gis nga këyitu 3 mois boobu. dañ ko dañ ko war a renouveler chaque 3 mois. pendant combien de temps. on l'a on l'a fait jusqu'en 80 80 combien 80 peut-être 95. ok tu comprends. Mm. alors ñu jug benn bés rek arrété sans avertir. Mm. te li ci gën a bon dans les hangars étaient pleins donc ça veut dire des produits destinés aux réfugiés. gisuñu ko ba tey. ñan ñoo doon gérer loolu. état bi moo ñëw ak ASER jël ko. état sénégalais. sénégalais ak ASER jël ko xamuñu fuñ ko yóbbu. te tu tu es d'accord avec moi bu nekkee hangar yi pour réfugié la ñu def fa lenn mu am benn décision bu ñëw après mais ban avant kay li fa nekkoon kay ñi ko. je pars du principe li fa nekkoon kay ñoom ñoo ko moom. dëgg la mais ba léegi dañuy toog dañu taxaw fekk gis ay ay ay ñëw di ko jël di ko yóbbu. Hmm? lu kenn musul gis ban ça veut que ñoom ils ont été affamés d'un seul coup affamés d'un seul coup et ça la responsabilité de l'État et du HCR ñoom ñëpp si lañ bokk parce que amoo demoon na sax ba ay réfugiés yi neen dañuy xeex ak ñooñu. pour ñu bañ a yóbbu lekk parce que dañu ne que ñoom ñu ko moom te dëgg la. effectivement ko génn na ñëw na. mais jeex na dégg nga lu ma na nee naa fay jógee angaar yi ba si kaw li li dekkoon seen ration li leen di jox. ceeb diwlin meew tàndarma des détails comme ça dafa dem ba si fees ba si kaw ñu ngi taxaw remorque ñëw ñu jël yóbbu. te ñoom ñu ngi dox lañ ko yóbbu. kenn xamul kooku moom. c'est le, le début vraiment de ce que j'appelle euh, le, le, le, génocide alimentaire. Ah, kon mu nekk beneen problème. encore mais mais déglu lu ma la cest à ñoom dañ doon vivre comme ni ñu koy wax en fonction li leen di rationner. Mhm. mais ki nga dafa dem ne waaw léegi weer bi jeex léegi ma jot tekk ñu ni ko dootul amati te amatul dara. waaw amul liggéey amul këyit amul suñu dëkk. déglu lu ma la Donc ça a été une rupture psychologique extrêmement forte et qui a amené ba dem nag ba indi nag euh, bañante wala une certaine colère frustration des mm. des des réfugiés envers l'État sénégalais ah parce qu'ils ne peuvent pas concevoir mm-hmm. que ñu yegg ba fii que ñii leen def nii mm-hmm. en fin de compte après ils ont compris dañ ko doon def noonu pour xiifal leen pour ñu dellu seen dëkk c'est une politique dafa de, de comme encore euh, xiifal pour nit ñi dellu et la preuve en 95 c'est le début le premier groupe de retour volontaire en Mauritanie des gens qui sont partis comme ça parce que nee ñoom ils préfèrent aller mourir chez eux que de mourir ici noonu la ñu demee premier te ñu si bari ay fonctionnaires la mooy ñi o la kon groupe bu groupe Dagana bi. léegi ñu moo leen yóbbu. mais cest à euh, ni ni ñu demee mais si c'est là fii nga dul xam mais Mauritanie ak Sénégal fleuve bi rek la. ñoom bu ñu fi ñu am na ñi nga xam ne bu ñu toogee fii dañuy gis seen kër. Hmm? qu'est-ce que bu ñu toogee fii dañuy gis seen kër am na ñoom dañuy toog fi gis seen nag bu ñu bàyyi woon foofu ak nag ni mu amee rapport ak pël. Hmm. mais saa da toog fi di ko gis suba lool nag picc gis nga loolu nag. mu torture torture surtout pël ni mu am ni mu demee ak animalam. ni mu gën ak malam. di gis malam ñu koy rendi wala gis nagam wala nagam bi bu bu comme encore bu jooyee ak kii bi rapport bi muy am ak moom. Mhm. mais def c'est c'est pire que euh, euh, comme encore euh, torture. donc en 95 la nit ñi commencé dellu te ñiy dellu comme nu la fonctionnaire la ñu dañu def noonu bu demee demee encore amoon na propagande bu ñu doon wax bu ñu delloo di leen delloo seen liggéey. cest à yu mel ni comme. Mauritanie ñoo doon wax lool. Ah. état Mauritanie état moo doon yónni am na nit ñu doon ñëw. Mm. yónni Maurit par Mauritanie wala par ñoom ñoo ñëw di diffuser boobu information venant de la Mauritanie. da ngeen dellu si parce que place yi kenn nekkatu foo léegi boo leen ñëwee ñu ne loolu seen seen place sur plus de cent personnes. Mm. téeméer yi dem ñett rek ñoo am seen ñoo dellu dellu seen liggéey. Mm. ñett rek te kenn moo si gënoon dëgër gi si ne si yëpp toog nañu ay ñaar ñett avant ñuy dem. avant ñuy jot seen liggéey ñi si des yëpp ay hauts cadres ay hauts fonk kii comme encore officier militaire mm. ay gardien lañu ay chauffeur lañu mm. ay bëccëg dañ leen la porte exclue complètement d'ailleurs man après maa ngi bokk si ñooñu mooy man ba léegi dewuma pour rek won la parce que boo loolu tax dellu woo parce que da nga am écho li fa xew mais xoolal gis nga bokk du ma gis nit bi nga xam ne bu demee ñu dóor ko man may dem pour ñu dóor ma mm. loolu du affaire jàmbaar du parce que gis nga yëf yi bu leeroon ñun duñ fi def gis nga ñiy dem ñoo ñuy wax li xew te nañ ñoom bu ñu xamoon duñu dem waaw boo déggee loolu xam loolu nga dem lu la fa fekk kan la ñuy wax mais lu muy jëriñ lu muy jëriñ donc nga toog fi nga toog ak sa problème moo gën ngay dem encore demal yenn problème yi nga xam du fee foofu moom doo am au moins fii di nga ko mun wax parce que ton statut te le permet mais fee du dara la preuve ma jox la la preuve accord tripartite bi ñu def en mille 2008 parce que 2008 mm-hmm. le dellu bi gën a fort lu tax loolu ñu ne 89 ba 2007 bu ñu laajtee réfugié moo at at bu nekk dañuy laaj réfugié ñu bëgg a dellu 10 à quinze pour cent rek ñooy ñooy wax waaw mm. 2008 dafa am lu xew 2007 2008 dafa am lu xew y a eu un président démocratiquement élu pour la première fois en Mauritanie kooku jël courage am à deux mains ne day régler problème bi. oui Abdoul Aziz. ñëw mu def du Abdoul Aziz jëlee Sidi Abdallah. Ah. kooku def mission fii ne bi ñu ñëwee fan nga xam ni seen kàddu neex na dañu ñëw ne ñun ñëwuñu pour wax dañu ñëw pour déglu leen lan ngeen bëgg pour dellu si. tu t'imagines mais ça a tellement impressionné bi ñëpp wax leen li ñu bugg ak ni ñu ko buggee président bi jël parole. lan ngeen bëggoon booba. dellu mais dellu nag dans des conditions de sécurité nit ñi dellu seen liggéey ñi doon liggéey nit ñi nga xam ne amuñu woon liggéey ñu xool nu leen di dédommager ñi amoon terre ñu bàyyi leen seen terre mais loolu kay lool kay lu yomb la lu yomb la alors ñu wax ko lool mais le président. en juin 2007 mu def benn discours bi nga xam ne ne dëkk bi gouvernement bi le président mauritanien reconnaît que la Mauritanie a déporté ses propres citoyens te loolu baaxul te léegi dinañ dellu si waat te dinañ def lu tout ñu si mun ñu rendre leen justice gis nga foofu man c'était la première fois ma ne oui je veux retourner au pays donc gis nga moom bu ñu laajee waxtu boobu ñaata nit ñoo bëgg a dellu de 10 à 15 pour cent xam nga fan la taux bi dem 95 pour cent. Hmm. donc ce qui veut dire bu ko nekkoon affaire Gauthier Mone Sélène kenn du ko waxati. yi fi commencé rapidement man lu tax dew ma parce que suñu tour ñëwul woon comme tu sais buy loolu daf dañu par groupe lañ voilà te surtout ñun euh, euh, départ réfugiés urbains yi yi nekk ci ville bi ci hmm. Dakar commencé gul ils ont commencé par les gens proches dans la vallée ce qui est euh, Dagana hmm. jug fii rek daal dex bi yegg xam nga loolu moo gën a yomb ko dem demande Dakar organiser leen jël leen tali bi yoon beeg yooyu hmm. léegi lu xew six mois après. Mhm. Aziz def coup d'état boobu. loolu moo arrêté processus bi. d'accord mais Sidi li mu commencé woon mi ngi doon marché. mais je dis que en en moins de en moins de six mois sept mois huit presque en une année. il a il a ramené vingt mille réfugiés mauritaniens. Hmm. donc presque la moitié des gens qui étaient encore là sont partis. te ñi dem yëpp amuñu benn problème ñi ngi nekk ñoom ñoo ñu doon wooy les choses se trouvaient normalement y avait une am na benn mbootaay bu ñu tabaxoon foofu pour occuper pour toppatoo affaire donc lan li ñu leen wax daal même bu ñu gisul lépp mais processus baa ngi dem mhm. et puis ñi ngi yëg seen bopp ah. xam nga nit boo jugee si coono buy mhm. dawlaxu mhm. am na benn aspect confiance boo ko amul rek loo am baaxul. mais ñoom daal ils bégg nañu. Mhm. yëg nañu daal qu'ils sont mauritaniens yëg nañu qu'ils sont mauritaniens. Mhm. léegi processus baa ngi dem. gis nga boobu lu mu waxoon dans trois mois ñu commencé defar ay këyit mhm. waa ji daf ko arrêté y a des Mauritaniens yu dem en mille 2008 2009 ba léegi amuñu këyit. ñu ngi foofu. ñu am na ñeneen dañu dellu si fii. donc léegi amuñu kayit fee amatuñu kayit fii avec tout ce que tu de problème de terrorisme mm. euh, frontalier okay. avec tout ce qui s'ensuit et encore beaucoup de ces gens sont des Peuls avec le problème des Peuls que tu vannes donc daal mooy pour wan la daal que yëf yi yëf yi euh, doy na waar doy na waar doy na waar waaw doy na waar léegi Abdelaziz bi mu ko coup d'état kon yëf yi dafa arrêté carrément waaw def xam nga arrêté mënu ko woon arrêté tak tak tak mais dafa def yi nga xam ni day wane ko arrêté parce que ñee ñoo jëkk yëg ni que lii leen doon defal lii liñ leen doon kii te xaw na muy benn ñaar mu ni moom ah, affaire refusé jeex na ku bugg a ñëw rek na ñëw. waaw ku bëgg ñëw rek na ñëw. c'est que donc dire. mais ñëw ci yan conditions. Euh, problème baa parce que bu nekkee yow. da nga nekk daw làqu amuloo këyit amuloo ku la protéger amuloo ku la dimbali il faut nga wéeru fenn léegi boo ñëwee si euh, retour organisé am nga ku la indi parce que il y a un recensement côté pays d'asile bi Sénégal le mandataire au commissariat des Nations Unies ñooñu mun nañu pousse li ñu mun mais léegi bu nekk yaa ñëw dañ lay xool seen yoon nekku si yoon dama ko toppatoo toppatoo wu ma ko gis nga loolu nag moo rey nit ñi malheureusement nii l'état sénégalais nii la ASER non ah man mos naa toog si réunion au niveau de la présidence may leen may yéen lii mooy lan yéen ñett ngeen woon ngeen signé benn accord ne lii ak lii lii li gën a important muy këyit yi c'est vrai kenn du lekk kenn du lekk këyit mm. mais dina la jëm dina la jox sa jëmm tu comprends dina la jox sa jëmm te loolu ñun c'est important parce que ñoom dañu ne ñun ay sénégalais lañu mm. dañu ne ñun ay nit ñu wutul si woon liggéey lañu donc ñun loolu c'est la question primordiale mm. ñu reconnaître que dañuy def faute ñun ay Mauritaniens dégg nga léegi yéen loolu xew na ba léegi waxu leen ñuy non non non loo ça on le règle dans le problème diplomatique ma mi ko mais ça c'est un crime mm. parce que yéen boo ko defee diplomatique ñu nekk si biti yëguñu. les, les, les, la population sénégalaise africaine qui est pense qu'il n'y a aucun problème alors qu'il y un problème de survie. ba léegi tontuwuñu te c'est un service directement lié à la présidence pour les problèmes de réfugiés et de rapatriés donc pour woon la ah ñii ñu wax la dimbali. bu ñu dimbaliwul ñun bu ñu waxee ñu boole ñu encore ne du ñu wax mais lan la ñu bëgg. léegi boobu ba tey yéen a ngi ci situation boobu. jusqu'à présent on est dans cette position li gën a métti xam nga yëgu yëgoon nga que depuis décembre 2016 ba octobre 2017 amuñu këyit. yàlla baax na ñu xeex xeex xeex loolu li li ñu may këyit tuuti mooy affaire élection yi di ñëw parce que dama leen ne boo leen deful loolu ak ces hommes politiques là ils vont aller voir les réfugiés ils vont leur donner des pièces te dañ koy jël. te man mënuma concevoir un étranger di voter man mënuma ko concevoir je vous respecte beaucoup mënuma concevoir un étranger bokkul xamul yëgul ñëw di desal loxoom ci biir euh, la gestion administrative d'un pays où il est hôte d'autre part baaxul di jox këyit ki ko mérité wul Sénégal du këy euh, kay euh, carte Sénégal c'est pas du c'est pas du du du kayit bu ñuy bu ñuy wanteer. ba mm. mais man bu nekkee man may may may may maire di wax loolu. Mm. waaw waxatuma Sénégal ñoom na la war a nekk. donc te décision boobu si ñoom la waroon a jógee. waaw man loolu moom. kayitu réfugié boobu ba tey ñu ngi leen ko doon jox. ba léegi. d'accord mais dañ ko arrêté woon. momentanément dañ ko arrêté woon pendant presque mois. pour quelle raison. xam nga état Sénégal man day faa damay ne dafa ragal Mauritanie. Mm. parce que c'est comme si ñun dañuy jël en otage. gis nga euh, na ko seetlu chaque fois bu ñuy yëngalee fii ñu ubbi bunt bi Mauritanie ubbi bunt tuuti je t'assure buy demee tuuti rek ñu fermé waat te bu ñu fermé si pêcheur gendar yi lañ koy dóor chaque fois bu ñu nekkee si ay manifestation ay activité wala ñu dégg ak ay nit parce que ils ont leur personnel kooku moom je ne la l'apprends pas mm. état bu nekk am na ay nitam ci dégg ah, yëg nañ li ñuy def rek ñu ubbi bunt nga gis benn ministre bu jugee fee ñëw fii visite. Mm. porteur de message wala nga dégg ils ont donné des licences. Mm. bu yàggee rek mais xam ni que ñun xaw nañu noppi wala am na lu taxaw wala lu ñu taxaw rek. ñu dóor te bu ñu dóor rek si si pêcheurs yi la wala si citoyens sénégalais yi commencé di gis affaire permis de séjour rek yu kenn xamul mm. chaque fois day xaw waa man nag li ma naqari mooy des fois du ma bëgg wax parce que man je si suis pas sénégalais. Mm-hmm. mënu mu wax lu lu baax pour Sénégal. mais des fois damay xunn damay mer parce que lii mënuma ko comprendre mënuma ko comprendre état dafa war a dafa war a protéger ses citoyens waxuma la si fen mais si dëgg war na leen si ok et puis d'autre part relation égalitaire amul fenn on a vu Trump pleurer devant les Chinois mm-hmm. on a vu les Français devant les Allemands mais na am quand même leen lu xaw a yëg mm-hmm. mais yow lu Mauritanie wax rek baax na waaw mais kooku fu ñu jëm bu nekkee man maay wax loolu mais les gens qui sont ñoom la lan mooy seen liggéey donc man des fois damay sama sama sama yaram day daw daal sama yaram day dafa xam lu bari damay gis damay il faut ma jël sama euh, euh, buum takk sama pour bañ a wax parce que je suis énervé par le comportement vraiment trop terre à terre. Mm, du Sénégal du Sénégal kon léegi yéen a ngi am seen kayit réfugié normal. commencé nañ ko euh, octobre 2018. octobre 2018 bi commencé na laa wax ne ñu arrêté ko ndax élection yi. élection présidentielle bi d' accord waaw par trois mois lay nekk comme ni daan depuis après loolu évolution bi passé na ñun xeex na ñu mu dem ba une année après bii wàllu ñëwee ñu defoon ñu ko cinq ans. léegi 5 la. ah 5 ans 5 ans la waaw fii 5 ans la. donc ñun euh, octobre 2018 la ñu commencé di ko defar mais ñu arrêté ko ak élection présidentielle yi passé hmm. ba léegi kon du ñëpp ñoo am. di jeexal mi ngoog. Hmm. donc benn ñëpp amuñu ñaar recommencé kuñu ko. Hmm. ñetti beneen problème bu si xew amuñu passeport. ku bëgg génn léegi. kon mënu leen dem fenn. fii rek. kon 89 ba tey kenn tukkiwul. non sa à dire temps bi ñu nekk nii. waaw temps bi ñu nekk nii comme ni mu la waxee euh, commencé nañu joxe carte joxe commencé joxe carte d'identité yi mais ñëpp amuñu. muy benn ñaar ñun ñëpp kenn amul passeport. comment ñëpp kenn amul benn réfugié bu am passeport. carte d'identité lan lañ leen di jox. ah carte d'identité réfugié. d'accord. carte d'identité carte d'identité réfugié la ñuy jox. d'accord danga donc carte d'identité réfugié la. Mhm. kooku c'est clair carte d'identité réfugié. Mhm. c'est pas des cartes d'identité donc mun nañ def lépp lu si gën a bari luy sénégalais def. sauf voter. d'accord voter moom bokk. autorisation de séjour la rek mingo mingo. en tant que réfugié. Hmm. en tant que réfugié. waaw tu comprends donc bu loolu lii passé. léegi lii mun na la may passeport. waa gis nga lii nag laa war a déposer. pour demande passeport. passeport lan ngay am sénégalais. déedéet passeport de réfugié ñi ngi koy woowee titre de voyage. dama ko wax passeport rek pour mu gën a. pour nit ñi ñuy déglu. pour nga mën di dem di ñëw. waaw mais réfugié dañ ni passeport ni ñuy woowee passeport. mooy titre de voyage. waaw loolu nag amaguñ ko. parce que kii jeexagul comme ni mu la waxee ñëpp amaguñu. ak ñi bëgg a am passeport mënaguñ ko def parce que yi fii dañ ko arrêté depuis élection yi. léegi nag li des nag mais nag dinaa si sant euh, Aliou Ngouille Ndiaye mm. parce que bu nekkee dëgg la bi ma taxanteeg moom si benn émission station télé. Mm. dafa ne woon moom de lu mu xam tant que mi ngi fii dina régler problème mm. te si si si na régler na ko parce que wax naa la commencé nañu am te aussi léegi li des. ñu gisante gisanteeg moom pour mu dimbaluñu ñu bugg ñu bugg am titre de voyage hmm. ñu am ko mais surtout mu yeggale waaw carte d'identité ñépp ñi ñi nekk réfugié am carte d'identité tey ñaat ci ñaata ngeen toll réfugié yi ñun de on balance entre trente et trente cinq mille ci ñi fi nekk ñi fi des ñun pour ñun trente trente cinq mille ñoom nag am na la ñuy yoxee mais c'est pas grave li li ci important mooy ñoom ñoo war a def statistique mu génn mais li gën a important mooy fi ñu nekk nii hmm. ñetti cas moo si nekk ñaar ba ñetteel bi benn bi am na ñu nga xam ne ba léegi dañu bugg a dellu waaw te mënuñu dellu te état bi waxagul dara si loolu ñaareel bi am na ñu nga xam ne léegi dañu doy li si Mauritanie pouf bëggatuñ sax dégg dañu bu nekk sénégalais mm. te mënuñu ko nekk mënuñu def demande nationalité gi def nañu ba pare mais ba léegi état bi facilité kuwul c'est que donc dire Sénégal li mu yox si kaw li mu wax si du benn parce que man dama mënul comprendre daaw làkku bu nee bu def ay période dix quinze ans dem ba léegi man doy naa sama dëkk dama bëgg nekk Sénégalais mais mbokk ko kay pour dimbali ko yomb na yow forcé wuloo ko moo ne bopp dafa bëgg a nekk benn délit amul fenn fu mu dugg normal mi ngi def li muy def di jëf est-ce que yéen a ngi liggéey am ngeen activité tuuti ba dégg la ma am <laughs> activité c'est trop dire euh, même suñu jigéen ñi pour nekk mbindaan da problème la. Ah oui. parce que tu sais kër yi. Ah. bu wol amee. waaw ah, mbindaan doo fa nekk te amuloo këyit. tàddante te bii boo ko wonee li si bari si Sénégal xamuñu ko. Mm. dañu ne luy baaxul. te l'État sénégalais dafa aucun effort pour sensibiliser. aw benn communication man lii maa koy doog a gis te xaw ma ko. maa ngi lay wax leen Daouda Diallo bi mu nekk ministre de l'Intérieur en 2015. dañ ko dañ ko yuuxu ba mu ba mu def benn note circulaire mais da ngay dem police ñu ne lii xamuñu ko. waaw gis nga kii bu bees bi ñuy jox nii en décembre de en deux mille dix huit bi. Mm, octobre waaw dem naa si benn commissariat bu bañ wax turam pour def euh, photocopie ñu lànk ko. Hmm? dama mujj woo présidence service président bu tax révisé pour ñooñu woo leen. Ah est-ce que defe nga réfugié yëpp mun nañ loolu. xam nañu loolu. man Cissokho man sama bopp ki en tant que coordinateur. yow président nga am nga ñoo fa xam. am nga mbingo mbingo en tant que coordinateur maa dem ñu lànk. mun nañ la jàpp sax ne faux papier. plus que sax moo tax ñun si ñu bari bu ñu génnee guddi day fekk guddi daf ñu fekk si biti rek mais ñun du ñu génn guddi. parce que mun nga mun nga xamante ne force de l'ordre dans tes mu mu sonal la. surtout dans les conditions quotidiennes heureusement sax élection yi jaar na mais à l'époque xëy na ñu bëgg xaru góor du affaire courage xel la bu nekkee da xam ne que lii boo ko defee dañ lay dëlër wala dañ lay si rey mais boo fa demee tu n'es pas courageux tu es fou mm. exactement moo tax am nañ si bëri duñu moo tax bu ñuy génnoon si wax xulu bugguñu ko parce que xam nañu lii mm. ba lii bu nekkee yow les forces de sécurité défense ñoo lay ñoo ko xamul population bi gën a fu mu dem mm. boo demee si banque pour retirer wala wóori ñu la lii xamuñu ko donc il faut que sa intimité nga dem xool benn sénégalais wax ko nga jël dara jox ko ko. mu mu mu defal la. ak ah, ah, loo munti ndaw. waaw mais mbokk mais loolu day wàññi seen nitaay. effectivement. nañu waxante dëgg nit nit rek la. Mm. boo gisee ñuy sol yére parce que dafa am lu muy tekki. mais bu nekk loolu ñëpp ñu ñu ñu bàyyeeku. gis nga loolu nag dafa dem ba sa problème mu administratif. Mm-hmm. gis nga te te li ci gën a metti mooy. am na am na benn dossier bu ñaa bu ñu am ak sénégalais yi kooku moom dama koy wax mais xam nga sénégalais yi bari dañu defe que ñun ay sénégalais lañu. ndax ñuul ngeen yéen a ngi làkk olof. mais mais mais mbokk dama ne sénégalais yi juddoo Mauritanie mais du ñu ay Mauritanien sénégalais yi juddoo Gambie du ñu ay ay Gambien sénégalais yi juddoo Côte d'Ivoire du ñu ay Ivoirien pourquoi ñun ñu bëgg ñun ñu def ñu sénégalais te sant dëkkul fenn. ça te dëkkul fenn gis nga loolu nag moo gën a moo ñu gën a rey parce que yow ki dimbali bu amee même xalaat que ki lay rey mais kooku fan ngay dem. parce que ñoom nee nañ ñun ay sénégalais lañ ñoom nee nañu ay gan lañ léegi nga ñëw fii ñu ne yow parce que jàngee nga fii wala nekk nga fii sénégalais may leen mbokk. def naa dem bitim réew sénégalais bu ñu jël si pays africain bokk na si ñi nga xam ne si premier sur liste bi la noonu ah, mais seen doom dellu si nañu fii. donc problème boobu il faut nit ñi jàpp ko puis nit bu la nee lii la nangul ko loolu. ba gis ba gis. te gis nga loolu si moralement ça nous débarrasse ça ñuy def ñuy kase. Mhm. parce que am na yenn position boo fa demee ah, boo amul mur boo wéyul. dangay ngay da ngay dem sax dootoo bëgg sax dund. dimbal baax na de. Mhm. ku la ne dimbal baax na fekk yeggul si situation bi rek. Mhm. looy dëgër looy intelligent looy lii dina benn moment wa da nga soxla nit bu la yëkkati wala nit bu la jox benn taasu ndox bu sedd na la naanal wala nit bu la ne kaay tëdd fii wala tu comprends donc loolu def ñuy manque surtout dans cette période la mm-hmm. et cette période là était très difficile parce que 30 ans du 3 kon fi mu ne amuleen ay ndimbal yu ngeen di jot wala ay soutien genre yooyu dara. non parce que soutien bi gën a bi bi bi en bu ñu gën a mun a wax mooy peut-être un peu dans les organisations de droits de ñu ñuy dimbale bu ñuy def ay ñu def ko dans leurs locaux te du ñu fay. la presse il faut le dire la presse bu ñuy ñëw si ñun dañuy ñëw d'une manière bénévole def seen liggéey def et ils le font extrêmement bien mais fi mu nekk nii cest affaire dañ ko bëggoo dañ ko comme je dis on veut faire pourrir la situation c'est-à-dire ñun lu ñu xalaat mooy dañu bëgg a defloo Sénégal dañu bëgg ñun ñëpp comme en 95 ñun ñëpp ñu ni boo comme que noonu rek nañu dem jël kayitu Sénégal te loolu. te yéen bëggu leen parce que ñee bi ñuy dellu bi ñuy dax ñu ne ay Sénégalais lañu jóg ñun bu ñu leen carte de santé li ñu doon wax mi ngi nii donc psychologiquement. waaw mënuñu ko accepter. dëgg la. danañu waxante dëgg yow nit bu la bu la tàmmee dëmm nga dem def yu fi dëmm loo bëgg si. yow wala jigéen ñu tàmbali lu bon nga def di ko def lu desati. tu n'as tu n'as plus de amuloo fenn fooy dem pour pour wéddi. moom mooy situation bi ñu ngi ñun lenn li ñu mun a arrangé rek mooy li xewoon en 2008 parce que Mauritanie mi ngi dem élection le 5 euh, au mois de juin. dañuy ñaan yàlla li xewoon 2008 ñu am un président démocratique élu ñu amaat beneen président bu dul le candidat du pouvoir. parce que Aziz il a deux mandats c'est clair wax na ko il n'est pas candidat donc léegi ne élection bi ñuy ñaan mooy opposition bi gagné mm. te opposition bi jox point fort ci affaire mbokkam yi nekkoon bitim réew mm. waaw mbokkam yi nekk loo lool daal mooy parce que en ce moment là espoir boobu rek ngeen am fi mu ne yaakaar boobu kese waaw ñaareel bi mooy li ñuy ñaan te amaguñ ko mm. mooy parce que man dama ne woon en 2012 Euh, deful li mu warul def li mu waroon def hmm. parce que alternance en Europe aux États-Unis dafa am valeur hmm. Sénégal dafa am benn taarix bu mu am à l'extérieur bu Macky si période première mandat bi hmm. waxoon communauté internationale gis nga ñii ah, y a problème avec c'est problème avec les réfugiés parce que seen nguur bi fii tant que ñi ngi fii suñu relation yi du baax dimbal leen ma ñu génn leen yóbbu leen beneen dëkk je vous assure la communauté internationale sera disponible. kon yéen da ngeen bëgg a dem feneen. mais bu nekkee fii mënuñu am lu ñu nekk mënuñu dund mais ñu xalaat suñu doom yi mm-hmm. ñu xalaat suñu jabar yi suñu jarbaat yi mm-hmm. ñun kay on peut dire que ñun euh, on s'est déjà sacrifié mais suñu doom yi ils ont besoin de vivre. ils ont besoin de ils ont le droit de vivre. Mm-hmm. Mauritanie rek du dëkk Sénégal rek du dëkk la Sénégal ngi fii il y a beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger est-ce que ça fait Sénégal mais ñun comme que kee bañ nañu nee nañu mënuñu ñëw te fii état bi ay problème politique ak yëpp la dugal si si doon dossier humanitaire waa mbokk nañu fi jëlee bu ñu fi nekkul xanaa dañu tàmm dëmm bu ñu fi nekkul. ngeen demee feneen au moins di ngeen mën a liggéey di ngeen mën a. épargne et puis bu ñu demee feneen condition yu dañuy ubbil ay condition nañu nañu waxante dëgg. Mm-hmm. bu ñu fi nekkul kay. nekkuma fi euh, bi ñuy dóor waa ji ko nekku fa mais kenn xalaat xalaatul di wax que Cissokho moo ko dóor. donc bu ñu fa nekkul leneen mooy nekk diggante Sénégal ak Mauritanie mais du problème réfugié yi te nag Sénégal wax ko bañ ko wax le problème des réfugiés est fondamental dans les relations actuelles Sénégal, entre la Mauritanie et le bu sanal sa bopp ñu wax ko si ko wax ko suuf tant que c'est pas réglé dina am kenn kuy xët keneen kuy suul hmm. waaye ñun nag kon ne ñàkk pexe moo tax ñu bàyyi leen. mais euh, mi ngoog. mi ngoog clair net et précis. Hmm. waaye loolu nag mënul yàgg. parce que nit du dund ba àdduna. te ñi fi dee bari na trop. Hmm. mariage feebaree jafe-jafe fajoo hmm. kenn xamul sëy yi tas fii kenn xamu ko. waaw ak yeneen ak yeneen te loolu yëpp manque de coordination la manque de volonté politique. man mun naa d' accord Mauritanie def njaaxonam mais Sénégal quand même. malheureusement li ñu cërale woon ci waxtu jeex na waaye jàpp naa ne l' essentiel a été message bi ñi ko war a dégg yàlla nañ ko dégg def ci li liñ ci war a def ñu ngi lay gërëm bu baax euh, Cissokho waaw man maa ngi dellu si leneen xam nga waxoon naa la euh, événement 89 euh, si koor la waaw yàlla ngi def ñu ngi jëm si koor te koor waxtu ñaan la mhm. dañuy ñaan suñu borom mu dimbali ñu que koor gi nekk suñu koor gi mujj si biir Sénégal en tant que yàlla na ko yàlla mottali te diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla na ko yàlla rafetal neexal comme suñu maam yi ni ñu ko doon neexalee ni ñu ko doon rafetee yéen tamit maa leen di ñaanal rajo bi dem si kaw a kaw a kaw vraiment li ngeen di yéene ak directrice bi ak euh, personnel bi li ngeen bëgg yëpp yàlla na nekk yàlla may jërëjëf Amine Cissokho jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi mu nekkoon Aldiouma Cissokho coordonnateur des euh, organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal euh, moom moo jiite kon kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb ñi dawoon làqu jóge Mauritanie ñëw fii ci Sénégal wala ñu indi leen fi ñu jóge ci événement Mauritanie bi amoon euh, atum 1989 jàpp 91 ñuy dund lu metti vraiment ñu leen di ñaanal yàlla taxawu leen ci moom mi nga xam ne dara tëwu ko ñuy gërëm Ibrahima Ndoye ba mi fare woon ci wàllu machine bi gërëm leen bu baax itam yéen ñi doon déglu démb ak tay la woon kon ñu joxante dig daje dimanche beneen incha allah waxtaane leneen ak keneen Fatou Thiam nga moo nekkoon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm